ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waaj euh, di ko xaar muy le li ko waral mooy sama waajur wu góor wu ñuy wax Cheikh na Cheikh Al doomu Mohamed moom moo làqu at moo génn àdduna mu jur ma nag man ak samay moroom yàlla def na ko yàlla def na mu barkeele am na ay njaboot mu ngi taawloo góor yàlla bu ñuy wax Cheikh na Cheikh Sidaati teg ci ku ñuy wax Ibrahima Aydara teg ci ku ñuy wax ya teg ci ku ñuy wax Saad ci wàllu góor teg ci ku ñuy wax ab man mii cheikh na cheikh Mouhamed Fadal teg ci ay dara teg ci Abdullahi teg ci Atqaana teg ci Sidi Mouhamed teg ci cheikh Abdul Qadir Jilani macha allah yàlla barkelel na ko ci ay doom yu góor bu dee doom yu jigéen am na Aysatu ak Mariam ak Fat Bintu ak Nafisatu ak Jeynabu ak Aana ak faatima ñii ñëpp yàlla def na yàlla njaboote na leen bi mu génnee àdduna nag ren mooy neuvième édition. mu am ay njaboot njabootam yi ñu ngi fii ci pikin boori Sandika ñëpp a ngi foofu Cheikh na Cheikh Sidaati nag dafa génn àdduna mooy suma taawu baay ki ci topp tamit mooy soxna ay dara moom la tuddee taawam ñii ñooy sama woy ñooy ñoom laa bokkal ñaan gi nag mooy dama ko njëkk a def bi mu génnee àdduna ma ni comme sama waajur génn àdduna man mosuma taxawal ay jàng wala ay ziyaar bi mu génnee àdduna nag ma ne nag naa ko taxawal di ko defal ñaan ndax doo way jur wu baax daf bu fi bàyyee teen wala jàkka ju mu defar wala doom ju jàng muy jàng alxuraan wala doom yu koy wattu loolu lu luñ ko liggéeyal mën na koo jëriñ ndax nit mën ngaa ñaanal sa bopp yàlla may la mais na nga xam ne ne bés boo ñaanalee sa bopp ba yàlla may la soo demee ba nga xam ne nii def nga bàkkaar ba yàlla nar laa lakk ëllëg bàkkaar liggéey li nga liggéeyoon ñu fay la ko mu nekk sa biir compte loolu yàlla da koy yàq mais li la nit ñi di ñaanal ci sa ginnaaw loolu du bokk ci li ñuy yàq waaw nit mooy li nga liggéey ba fayeeku lu la neex nga def ko ci mais li jàmbur liggéey fayeeku du lu la neex nga ciy def kon bu la yàlla di sanctionné ci li nga liggéey la lay sanctionné maa ngi koy nettali ñu bëri maanaam bu nit toogee ba mu yàgg ne man gëmatuma yàlla parce que diine l'islam neexatuma fekk mu yoroon ñetti jabar ci journée bi jour instant bi mu ko waxee ñetti jabar yëpp day tas ndax dafa dafa gedd diine kon li ko diine joxoon diine daf koy nangu ci saasi ba pare diine jooju ko yàlla nangu maanaam jabar yooyu ñu tas tamit kenn du leen wax ne da ngeen di toog trois mois nangam ngeen xaar pour am jëkkër ku ci gis jëkkër suba da ngay dem sëy comme génn nga ci diine lislaam woy jur wi nag bi mu génnee àdduna nag mu yar ñu fi mu ñu yaree ma ñëw gis ci moom mu nekk nit yàlla liggéey moom daf maa teel a wax ni Cheikh Mouhamed Fadal loo mën a doon na nga jàng nangoo liggéey man tamit ma dégg loolu dégg sama maam ci lépp nag moom yontu yàlla Mouhamed ku teel a am jom la yonent yàlla Muhammad ku teel a am jom ndax juróom-ñaar bi muy am ñaari at ci biiru woy juram ci la baayam génn àdduna bi mu demee ba am ñeenti at yaayam génn àdduna bi mu demee ba am juróom-ñeenti at maamam bi ko war a yar génn àdduna diggante vingt ans dix huit ans ba ba vingt trois ans yii yëpp yonent bi dafa nekk biir màkka lu nekk mu dugg ci di sàmm dem na ba nga xam ne ni day dugg ci dëkk bi ne ñi yor seeni jur nañu ñëw di ko jox mu leen di sàmmal loolu ngir lan la ngir tée honneur am parce que nit boo amul ba pare bëgg jaamu yàlla bëgg ne da ngaa am fulla li olof di wax naan ku goorul ci dara munoo gore yonent bi nag teel a xam loolu moo tax musta sàkku di ñaan kenn wala muy defar kenn sam papa boobu nag Cheikh na Cheikh sa seex na Cheikh Mouhamed Cheikh al loolu laa gis ci moom bi ma ñëwee ma topp ko mu ne ma maa ngi lay dénk ëllëg lenn mooy na nga fonk sa bopp nangoo jaamu yàlla moytu caaxaan yàlla dimbali ma nag loolu ma nekk ci fii ma toog ni yàlla def na fii laa juddoo ndax tey nit bu juddoo ci biir kër yaroo fa màggee fa am na noo xam ne nii soo ko dundee ba yàlla may la lenn yi am na ñoo xam ne dana leen neex am na ñoo xam ne du leen neex mais ñi mu neexul mën nañoo indi sa démb wax ci loo xam ne lii ku ko dégg waaye man suñu borom musal na ma ci loolu musal na ma ci jigéen ju war a mën a taxaw ne Chérif man ak moom àgg nañ fii wala xam naa ko ci nangam ak nangam parce que man teel na maa xam sama bopp ndax li nga wax léegi rek am na foo xam ne fii boo fa bokkee am na yoo xam ne yaa ko war a jombal sa bopp mais yooyu warulaa jomb te nag li ngay war a jombal sa bopp mooy lu la jege koo dégg mu naan la noo lii duma ko def te jegewu ko kooku defu ko li mu bëgg a def da koo amul mais am na loo xam ne bu la yombee bu la jegee ba pare nga bàyyi ko koo koy ku yàlla dimbali man yàlla ma dimbali mais du sama njàmbaaru bopp ndax mel naa noo xam ne nii macha allah bu dee ci njàng gi ma war a jàng maa ngi ciy sant yàlla bu dee yàlla ak mayam nañ jël jàng beeg judd bi ñu teg fee mais yàlla muus sax bu ko mayoon yeneen muus yi dañ koy topp te yàlla moo wax loolu képp koo xam ne kii ragal nga ma man yàlla dinaa noot mbooleem lu ma bind mu ragal. moo tax ni nit ñi mel ci man loolu yàlla la du lu may sangoo man duma sangu man duma diw man du ma naan ndax munumaa toog fi yàlla def ci lii ci man ba pare may wëlbatiku di am ci lu may lu may sukkandu fa yàlla jaar ak sama maam fa la jaar ak man ndax yàlla moo fi indi yonent bi ne ko wallaahu man yàlla yaasimuka maa lay wottu minan naa si ci nit ñi kon la yàlla wax sama maam bu ma tegoo fa sama maam tegoon tànkam du ma jéggi aaye boobu ne man wàcc na ci man yéene naa ñëpp jàmm lu ma am bokk naa kook nit ñi lu ma li nga wax léegi rek lu ma xam ci xam-xam bëgg man tudd sax bu ma fa demee duma ko jàppee tudd damay jàppaane damaa war a ñëw fii ngir am tey lu ma fi wax mais ma pour ñëw rek jël doom li xam fii nodd fii après ñu daal di dem sama yoon déedéet parce que jotaay boo mos ta dem war nga faa wax lu kenn mos sa dégg jëm joo xam ne mosoo koo gis bu la gisee war naa am lu mu jëlee ci yow loo xam mosu ko amee fenn loolu nag mooy mooy ël bi illa bi daal mooy ñaanal sama woy jur si ana si alxadraame sunu xëyee dinañ jàng kaamil bu ñu jàngee kaamil ba pare ngoon gi ba dinañ añ suñu añee ba pare gudd ngoon gi dinañ def xadara xadara mooy zikkar ndax waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu nag loolu lañ leen xamee alaa bi zikrillahi tatmain al qulub ndax tudd yàlla dafay rafetal xol tudd yàlla day tax boo doon def lu bon nga bàyyi ko tudd yàlla day doon boo doon jëw nga bàyyi ko gis nga Cheikh na Cheikh Saad bu dafa jël ay taalibeem jox leen loolu ne bu ngeen ci saxee wallahi du ngeen dee te amu leen yàlla léegi nag nit nan la mënee di waxee laa ilaha illallah amul benn buur bu nuy wax ne sa nguur gi dëgg la lu dul yàlla ngay am keneen koo xam ne kii da koy teg xam nga ñun ay jullit lañ mais dafa am ay kàddu yoo xam ne dafa bëri dañ koy wax te jullit bu ci rendre compte dina xam ne ne jamono jëm ne jullit la ak bi muy naan génnaa ne ci jullit gi dafay gaaw waaw parce que ci diggante iyyaka na abudu na iyyaka nasta'in faxastalu woo sëriñ da cee xëjut yàlla yow la ñuy jaamu te yow rek laay wóolu faxastalu daal di woo beneen sëriñ xoolal diggante bi fi nga ko waxee ak fi ngay génnee ci jullit te nit gis nga bàkkaar bi bii tax nit murtat génn ci diine lu ndaw la yàlla mënul def temps bind ci doomu aadama yi yëpp ci ni mu leen bindalee jaara leen ci toq maniw téye leen ci seen biir jur neuf mois quatorze jours kenn mësul yót kenn mësu koo yónnee lekk kenn mësu koo jox oxygène mu téye la neuf mois quatorze jours génnee la ci kaw suuf jox la sa weenu yaay nga mën di xëcc te yow amoo xel amoo xalaat te fa ngay xëcc mu génn boo fa jamoon puso mu génnee deret mu sa wërsëgale la ci weer ci meew nga màgg ba toll ni nga toll jël yàlla teg ko fee jël keneen ko doomu aadama yi ñun li ne problème bi ñu am ñun ñoo ko teg suñu bopp ndax gëdd gi ñu war a jox yàlla moom lañ ko joxut kenn ku nekk dangay naan sama xol bi ni ci diw mel te xol ñaar doo nga ci xëj yàlla ak bi gis nga xol jëkkër ak jabar la jabar day bëgg jabar jëkkër day bëgg jabaram jabaram bëgg jëkkëram bu bëgg bu keneen bu kenn sa morom bëggee keneen rek wàcc nga yoon bi xol bu yàlla defar nag kaste ko ne bëggloowuma leen ci kenn wax yonant bi ne ko waxal sa gaa yi qul tuhibbuna allahu fattabiuni yuhbikum allahu waxal sa gaay yi suñu bëggee man yàlla ma bëgg leen donte yàlla amul xol mais waxin la mais déggin la laaj waxal sa gars yi suñu bëggee man ma bëgg leen mooy suñu bëggee bu ëllëgee ma tàbbal leen ajana suñu bëggee na qul tuhibbuna llaahu fattabi'uni yuhbikumullaahu waxal leen yàlla nee leen su ngeen bëggee suñu la bëggee rek yow yonent bi man ma bëgg leen yàlla dimbali nag programme bi yëpp loolu la programme bi sama ñaanu jur la taalibe yi tamit maa ngi leen ciy sant ndax ba ma ko tàmbalee ba léegi bàyyiwuñu ndax tey jii jàng yi li muy rëy rëy rëy rëy du ci def fukki dërëm ñoom ñooy def seen i pexe samay taalibe ñoom ñooy jël seen alal yónnee ma ñii ñooy dem jënd seeni nag andil ma ñii ñooy ñaw seen i yére parce que ku njaboote ñu bari du ma mën a tudd ay tur waaw ndax jamono dafa toll fenn léegi surtout njiit boo jiitee ay nit boo tuddee kenn sax nga dégg ñu ne xëy na dafa féetal kii ak nangam waaye samay taalibe ki def dërëm ak ki def ñaar dërëm laa yemale man taalibe li mu ba li mu muy njëkk xalaat ci man mooy na fexe rek ba sëriñam am yëg-yëg ci moom te man yëg-yëg bi du jox yëg-yëg bi pas-pas la ndax am na ñoo xam ne nii ñu ngi topp ci sama daayira bi te pourtant jébbaluñu ci ñu ci man pas-pas la ñuy doxee am na ñoo xam ne dañoo jébbalu ci man te ñu jébbalu ci man ak ñu jébbalu ci man ñoom laay yemale dañ koy wax ñoom ci seen groupe bi dangay gis ku ñëw tey nga dégg am ñu naan ko non ñun am nañ fi ñetti at gis nga taalibe ak sëriñ julli dabe la ku dugg ci jàkk fekk imaam di julli timis julli ñaari ràkk nga ñëw dabe ko fekk mu julli ñaari rakk nga toog julli benn gis nga boo waxee asalaamaaleykum yéen a yem même égalité soo mottalee sa ñaar rakk asalaamaaleykum yéen a yem même timis diggante sëriñ bi lay yóbbu ci yàlla nag la wax ndax nekk sëriñ tamit yombul maa ngi koy dégg sama benn taal bi sëriñ ak cëriñ du ñu benn cëriñ mooy koo xam ne kii dane sama baay mooy diw wala man nii laa sant ma toogee noonu koo koy cëriñ sëriñ mooy koo xam ne kii la fi yonent bi bàyyi woon nga ñëw di ko won gaa yi ñu di ci jariñu loolu mooy ak sëriñ te gis nga nag nit ñi dañoo war a denc ci réer mission bi yonent bi moo ko encomplir mat na ba pare al yawma lakum diine ji amul lu ci bees amul lu benn sëriñ bu mën a mën a jekki-jekki ñëw fekk nit ñi di julli nga ni leen wëlbatiku leen du ñu la topp soo julli woo jàngoo faatiya dañ naan la waxal subhanallah bu julli bu baaxul danga koy réparé gis nga diine ji dafa jag ba noppi amul lu bees amut lu màgget li fi yonent bi indi woon moo fi nekk moo tax yonent bi ne yàlla wax ñu laqad kaana lakum fi rasulillahi xuswatun xasana gis ngeen kii su ngeen ko royee te nit ñi li ma bëgg ci ñoom mooy bu ñu gisee ku tegoon fa yonent bi tegoon bu santee mendiit nañu ko topp xam-xam newul ci kër xam-xam du ay famille man nekkuma ne man maay doomu Cheikh Hadraame doomu yonent bi rek laa maa gën nit ñi déedéet yonent bi du ab sant la gënee nit ñi xam nga yonent bi lu mu gënee nit ñi jikko ku la gën jikko moom moo la gën waaye nag baax dafa am fu ñu koy séentu baax dafa am foo xam ne fii dañoo wax ne yàlla dafa waxoon ne ñii daal ndax yàlla moo ko wax innama yuridu llahu li yu yuzhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahirukum tathira ñun bi ñu amee sens yàlla bàyyi xeet yëpp ne faa doomi Fatima yi lu fàqe ko ci ñoom setal naa leen ñun ñoo waroon a gën a góorgóorlu luy te wala lépp loo xam ne lii luy safaan la ñu bañ teg suñu tànk ndax ku góorgóorlu ba ya ku góorgóorluwul ba yàlla mi nga xam ne ni mooy borom jaam yi yow liggéeyoo ko lu jar liggéey la ci sa barke maam rek la tibbee ne setal na la yow war ngaa def efoor xam ne ne war ngaa rus ñu lay gis ci yenn yi mais Sénégal fekk bàyyiwuñu ñi sant nii ñoo ñoo gën ñii ak ñi sant nii waaw inna allaha man yàlla astafa aadama maa créé aadama wa nuuhan ak nuux waaye mu ne gis nga ñii ñëpp famille bi yëpp li gën ki gën ci ñoom inna akramakum indallahi atqa mooy ki gën ci ñoom mooy ki ma gën a ragal te gis nga yàlla ba muy cité ci xeet yi ñi nga xam ne ni fa la yonent yi woo ci xeet googu la jël tànn leen te ci biir xeet googu kan moo leen gën diggante ibrahima ak nuux ak daawuda ak suleymaan ak jésus christ sax kan moo leen gën jésus xam nga bu demee ba ba ñu bëgg koo sonal yàlla yéegal ko kooku mën nga koo mën nga koo citer leneen te yàlla nee na man reyuma ko daajuma ko jamono ngi ñëw ci kanam nag Jésus Christ dana wàccaat 33 ans la Jésus Christ dund génn àdduna bu jamono demee ba ci kanam Jésus Christ dina dellu si waat lay dund boole ko 40 ans àdduna door a tukki Jésus nag laa la wax ndax Isa ibnu Mariama doomi Mariama bi moom la yàlla waxal nee na reyuma ko daajuma ko. man maa ko def yaayam jur ko ci quatre heures de temps la juddu kon lii lu leer la gis nga nit ñi bu ñu jëloon alxuraan def ko muy sunu kislaay nga xam ne ni lu waay jaaxle nga dem ci alxuraan génnee ko yàlla dafa wax ni maa faraq naa fil kitaab min <clears throat> mu ne bàyyiwuma dara lépp ngi ci biir téere bi gis nga nit ñi nag bu ñu fi bàyyee téere bi wax sa xalaat maa ngi koy wax sànq wax sa xalaat baaxul wax lu jub moo baax mais Sénégal wax sa xalaat moo fi am da ngay gis kenn ko xam ne dañ koy teg mu wax xalaatam ni mu ko arrangé te wax ji baaxul léegi nag xoolal nopp yi ko dégg est-ce que mën ngaa dugg ci nopp bu nekk dindi ko ci noppam moo tax Sénégal waroon nañoo xool balaa nit di wax sax ñu dem gëstu ko kii di wax mooy kan ak li muy wax fan la ko teg mais tamit bu fekkee yii dafa bëri léegi <clears throat> benn waay moo lay woo am lu mu la jox ñëw toog ne la déglu ma yow it nga xam ne ni yow da ngay xam ne ni kii li muy wax sax du dëgg nga déglu ko mu wax a wax ba pare nga dem génnee ko waaye ngal la kon ko ndax bët du yëg bànneex waaye lu baax lu ne xam na ko làmmiñ day yëg bànneex waaye léeg mu naan lu koy lakk ndax fi degré bi bët am ak degré bi làmmiñ am bokkuñu <clears throat> kon nit bu fekkee am na loo xam ne lii wax na ko tey nga dégg sama wax yi nga gis ci lu jaaduwul bu ko dugal aywa jërëjëf muy bés bi ñu koy waaj euh, sa sang bi wax na ko euh, mu leer genre DJ yi euh, ñoom da xaalis da leen di jaral rek ku leen woo rek ñu tegi la nga wax wax ba doyal ñu daal di monte dugal ko ndax bëggum xaalis di dégg nga li sëñ bi wax bu baax a baax kon bés baa ngi noonu ñu ngi koy waaj soxna jatu maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar bés bi nag le 9 la le 9 lan la. le 9 mars moom ñoo ngi ciy woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah di ci jiital nag njaboot gi nga xam ne ni ñoom la yàlla jiital muy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne kii askan nga ci yonent bi bàyyiwuñ la ngay góor di jigéen sa carte voté mooy wax ji képp koo xam ne kii njabootu cheikh na cheikh Mouhamed Fadal nga njabootu Maamin nga njabootu cheikh na cheikh Abdul Qadir Jilani sultaanul awliya nga bàyyiwuñu kenn parce que njabootu cheikh na cheikh Saad bu yi ñaar la mooy ñi nga xam ne ni cheikh na cheikh Saad bu moo leen jur ak ñi nga xam ne ni cheikh na cheikh Mouhamed Fadel moo leen jur cheikh Mouhamed Fadel bàyyiwul kenn góor ak jigéen bu dee nag ci wàllu àdduna bi moom ñu ngi woo tariqa yëpp murit tiijaan xaadir laayeen njaago yi sax ñu ngi leen ci woo parce que bésub texe la kaay leen ñu jàng alxuraan te alxuraan mooy téye àdduna kan moo nekk ci àdduna te bëggoo sa àdduna jag kon bu ñu jàngee alxuraan ba jàng xatmu bi bàyyiwuñu kenn lii daal mooy woote bi bàyyiwuñ ci kenn góor ak jigéen na ko ñëpp teewe jërëjëfati nee na mu ngi ci woo góor jigéen mag ndaw ñu ngi koy jaajëfal moom sang bi bu baax a baax euh, dija bala ñu ko jox mu tàggoo rekk bés boobu nag suñu bés la bés boobu waa KSTV ñoo ko moom waa Bët Info ñoo ko moom waa waa Top FM rajo ba sax dana ñëw ñoo ko moom kon bés boobu Modou Fall mu yaa coro maa ngi la ciy invité te naan la bés boobu na ngay ñëw ndax bés boobu suñu bés la sang bi moo woote ah, soxna Xadi Jatu tubaar fakàlla macha allah sa liggéey rafet na lool dañuy daal di bàyyi nag sang bi mu tàggoo ndax fi mu toll nii xam naa ne waxtu julli wi jot na mm-hmm. kon nag ñu ngi def ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen sant bu baax a baax di ñaan yàlla tamit tànk yi ngeen dox ba ak si fii yàlla na ko yàlla di seen liggéey yàlla na ko yàlla kawel mbooleem fii télévision yi di àgg ak rajo yeeg yëpp yàlla yàlla defal leen ngeen àgg foofu ba kawe ko yàlla am na ko mën na ko yàlla ko yàlla def ci barke yonent bi yërmande yàlla yaat na yàlla ko yàlla sotti ci dëkk bi bi xurmati sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf jërëjëfati kontaan nañu bu baax sang bi comme ni mu ko waxee rek euh, nit ku baax la nit ku oyof la su ko neexoon mu ne sama maam mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay yëkkati samay mbagg waaye defut loolu dafa oyof daanaka taalibe mi muy wax yëpp mook taalibe mi benn lañu ku ci xewle dana teew te bu ko neexoon it taalibeem xewle sax mu ne woote naa ah naan di eh, di di di fa di soli dara naan duma fa yegg waaye moo fay njëkk te moo fay mujj te loolu yëg-yëg la ci doomu aadama li mu wax léegi nag euh, ku oyofal sa bopp rek yàlla kaweel la waaye ku kaweel sa bopp dàpp ne yow rek la yàlla daal lay wàcce moom nag dafa oyofal boppam tubaar fakàlla moo tax taxit ñëpp bëgg ko tey wax na ko ñi nga xam ne yeneen tarixa la ñu bokk sax dañ koo bëgg ndax Seydina Muhammad rek tax ndax sallallahu alayhi wa sallam ndax da di sëtam ba pare te ku ko gis da koy bëggal sa bopp ndax mbaax gi la ak néegam bii ku fi dugg ñëw mu defal lim lay defal ba pare te du la fa laaj dara yaay yëkkati jox ko sax yeneen sax mu bañ ko kon loolu bëgg la ak yëg-yëg ak jàpp bëgg jàppale jaamu yàlla yi moo waral muy def loolu kon sang bi yàlla na yàlla barkeel xam-xam bi yàlla na yokk yàlla na la yàlla musal ci ak seytaane jërëjëfati kontaane nañ la di jégoo jërëjëf waaye munu ñoo tàggoo te gërëmuñu soxna jatu bu baax a baax moom suñu xarit la tey mun nañ ne suñu bunt fii ci moom la jaar moo ñu fi àndi te réccu woon it lan la ñu fiy àndee nag wax dëgg yàlla ndax boobu ba tey ba jàppee ba tey bàyyi bés bi buy ñëw da koy jël yan ko ba mel ni moom fi mu toll nii bés boobu fekk jàllul rek jàmmam jeex na kon soxna Jatu nit ku baax la maa ngi koy nuyu di ko ziyaar sama xarit boobu man maa ko bëggal sam boobu nee naa ko yow jarul nga may bëgg li ma war a bëgg yëpp téye ko bàyyi ko man ma bëgg la ko yow xanaa du kon maa la bëgg ziyaar naa la ziyaar sëñ bi bu baax a baax di jaajëfal Modou Fall mu yaa coro mi nga xam ne mu laa àndal muy sama raq ji jërëjëf Modou Fall jërëjëf ñi nga xam ne ñoom laa fi fekk sama mbokki taalibe yi ay yéen man ak yéen ñoo bokk sëriñ kon maa ngi leen di jëfal di leen nuyu di leen kontaanee bu baax a baax ki yor organisation bi nu mu tudd Pape Seck ñi ngi lay nuyu organisation bi ren doo ci wéet di nga ci gis ñu la ci gunge ba nga kontaan incha allahu rabbi di jégoo bés boobu nag <laughs> xam naa la <laughs> waaye bëgg naa nag tey su ma la wooyee nag mu wuyu fajar <laughs> incha allah na nga teel a ñëw tàmm nga ku la woo boo bëggut a dem doo ñëw waaye fii suñu kër la jarul ree fajar da nga ñëw fii ñu teel koo jël ba lépp jeex incha allah jërë ngeen jëf ñu tëj rek ba beneen yoon